كان قبل دين Thank you. seeni doomi jàngagum seeni doomi jàngagum daara yaa ngi réew mi tey daara yaa ngi réew mi tey jàngaloo sa doom bu baax jàngaloo sa doom bu baax bàyyi alxuraan bi la bàyyi alxuraan bi la wax nga gëm nga war tuub nga tuub. wax nga gëm nga war nga tuub. jëf nga jëf ju ñaaw ju rëy. jëf nga jëf ju ñaaw ju rëy. بسم الله الرحمن الرحيم أنتم xamante ni dañ koo tànn ngir xale yi war cee tari di jàngoon ci daara ji ñii seen nag ñu ëpp nañ ci baax bi ngir mën a teewlu gone liñ jàng ci daara ji na xam sax mënuñoo wax lépp ñoom liñ jàng waaye ku nekk jukki nañ la loo xamante ni insha allahu boo toogee fii di wax lu ñëpp mën a dégg am naa ci yaakaar yaakaar naa ni alquranul karim nekk na lu lu gann lool nekk na it lu metti ci xale bi bokk koy jox ndax damay wax ni daara léegi neex na lool ndax daara léegi dañ ko moderniser ba mu neex waaye boo laaj ñu suñ xaadim kan muy toog nga leen dëkk ya ak yi léegi am na ixtilaaf am na wuti lool ku daan yeewu dem yalwaani loo dunde rawatina nga war a yalwaani suba yalwaani añ yalwaani reer ci diir gu gàtt lool ci koy def bu nag jàng ma tegu na fa mu war tegu daara cosaan boo ko déggee mooy daara yalwaani xëy suba dem yalwaani ceeb ak dugub ak suukar ak xaalis ñëw wane ko jàng sa bind bu tooy xib kasaak nga jàng sumun wala nga jàng sa xaaj sumun daal koy tari dem bind koo ñëw doo ko mën a wane loolu mooy boo demee ba alxuraan nag lu ñuy wooyee beqi nag daal di ñëw daara lu metti la fekkee nag waajur yi xam na ne daara yombul képp koo dégg ñu naan daara dañ ko yombale leen kooku xamul daan ndax alxuraan wax na ni yàlla sa borom bu ñu ko bindee da ko teg ci montagne montagne wa seey ndax disaay gan mu teg ko ci gileem gileem nga seey mu teg ko ci nit mu rasululaahi dafa xam ñu ko iqra rek mu xam daan waaye bu demee ba doomu aadama yàlla wàcce ko ba mu mën a mokkal alxuraan ko mën koo tari ak alxuraan ni mu diisee am na ñoo xam ne sax bu ñu koy tari ba digg ci benn yow ma mu ngi si rangoñu tàmbali tuuru ndax la xam ne yàlla di wax ci yow googu ndax yàlla day dëkkuwaat ci biir alxuraan alxuraan nag mooy taarix mooy fi gaa baax yi jaaroon alxuraan moom lay nettali ba mu ñëwee mu wut ñaari dañu ko tarale ak jëmm yu baax ya fa neewoon bi ñëwee wax bis bi nag dani dama cay bëgg lool dama cay kontaan lool ndax weeru koor moom dana xat ci man lool waaye sa ablaat lu ma boole ma bokk ci man xam naa li nga toogoo ndax nasru fee naafila ga yaa koy jiite yaay taxaw njàngum fulku ma yooyu yëpp boo ko boolee bàyyi bis bu ànd ak sa gan yu tedd yii ñëw xam na bis bu fokk nga ko lool yal yàlla taxaw ak ñi nga àndal ñëpp mboolem soxna yi ñi nga àndal mu soxna Ami Jóob ñu ngi koy saare mu sunu xarit di sunu jigéen kon yaakaar naa ni bis bi day bëgg a tàmbali dina benn yitte rekk lañ ci am te benn bëgg-bëgg rekk lañ ci am te Cheikh Abdoul mi woote ko ànd ko ak mbooleem ñi mu ko baaxoo àndal muy achatis yi fi nekk yépp rekk te mën naa ne lépp di benn famille noo ngi leen di nuyu bu baax di ziyaare itam bu baax ni ma ko waxee woon ci njëlbeen sëñ Abdou Lahad ndax taxawaayam ci yoon wi itam ni ma ko waxee pas-pas rekk moo ko lal ak yitte ju rëy rëy rëy kon bu dee ndaw ci zaaxir macha allah taxawal lu mel nii kon ku ñu war a sant la ku ñu war a jaajëfal la bu ko defee ni ñu ko waxee woon ci programme bi rek ñiy bañ na yàkkamti ndax li ñu war a def journée bi macha allah yaatu na lool te am na ay gan yu ñuy séentu te ñu ngi ci yoon bi te xale yi itam tabaarakallah ni ñu ko defee woon at mu ne. ñi seppe ci ñoo xam ne dañoo wattu téere bi yàlla bi war koo tari yenn ci tur tànk yi itam feeñal itam seen yéene ñoom itam ci alquran te loolu di lu am solo mbokk yi ñooy leen di nuyu di leen ndokkeel waaye mu nekk nuyoo boo xam ne waa daara ji ndeyu baale ñëpp njëkkee ci parents yi d'élèves yi ginnaaw loolu tamit ñu ziar suñu mag suñu mag suñu xarit di eh, suñu xaadim kan ñu koy nuyu bu baax di ko ziar di wax ne teewaayam bi lu lay la ci ndax day nekk taxawaayu mag di taxawaayu lépp ndax li nekk yaayam dafa nekk koo xam ne suñu suñu yaay la suñu lépp la kon lii bu ci teewee ñu tuddee ko bis bi loolu dañ ci kontaan loolu loolu kon dañuy profité rek ñëw ci programme bi ren nag am na am na ay yokkute dool sant yàlla ndax am nañu 37 yoo xam ne dañu war a tari euh, dañ ci jiital rek soxna Fatou mbay soxna Fatou mbay bismillah النفاثات في العقد ومن شر ومن شر حاسد إذا وقب صدق الله العظيم ما شاء الله xajla bu baax yada abi lahab wa tab ma ane antu malahu wa ma kasaba sayasla أبل من مسد صدق الله العظيم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu leen nuyoo di leen ziyaara di leen baal xaq baax di leen baal ñaan sunu borom boolu ñoo jéggal ci barkeeb alxuraanul karim ñu ngi nuyu sunu kilifa yi ñu fi fekk yépp tàmbalee ci góor yàlla yi nuyu sunu yaay booy yi teew ci jotaay bi di leen ndokkale bu baax di nuyu tout tànk yi nga xamante ne ñoom la sunu borom dogal ñu war a def conférence bi ñu ngi leen di ñaanal sunu borom barkeel leen sunu borom dafa leen ci tawféex alxuraan ji nga xamante ne moom lañuy jàng yàlla na leen a ràmm fii ci àdduna ak fee ci àllaaxira ràmm seeni wayjur waaye ram nag seeni sëriñi daayira kon nag comme dañoo xaw a tardé dañuy jéem a njëkkanteeg waxtu wi rek waaye balaa loolu ñu xamal ni ñi nga xamante ne ñoo teew ci baas bi bis yi mooy bis yi nga xamante ne moom mat a teew ndax nit dina teew ci jotaay boo xamante ne du ci jële yàlla du ci jële yonent bi sallallahu du ci jële dara waaye jotaay bi loo fi gën a toog sunu borom bi dina gën a bindal tiyaaba dina bindal ay yiw kon jotaay moo nekk jotaay yoo xamante ne ku ne war nga cee góorgóorlu di ci teew ba di ko baril barakaatu ginnaaw waxtu bi daf ñoo xaw a xoj rek te sëñ Mouhamed tàmbali na dañuy daal woo xale bu ñu naan euh, soxna mama ñang mu taril ñu suratu duha kon soxna mama bismillah Mokhtar Baye Mokhtar. waxal ah. turam. Ah. Baye Mokhtar. Hmm. acca ah. noppil nga tari noppil bisimilah. joxaat ku mu doon joxaat mu tari. Baye Mokhtar yow bi ngay jàpp ma defe ne yow grand grand grand grand. acca sootul kaafiruuna. qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wa laa antum aabiduun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 والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه والسماء وما بناه والأرض وما طحاها والنفس وما سواها والنفس وما سواها فألهمها وجوها وتقواها حسبك صدق الله العظيم تكبير سورة الخدر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة الخدر wama adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayrun minal alfi sahrin tansalu malaikatu wa ruuhu fiiha bi isni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta madlahi fajri sadaqallahu kon takbir الرحمن الرحيم الغارية ما الغارية وما أدريك ما الغارية يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتقول الجبال كالعهن المنفوس وأما فأما من ثقلت موازينه فأمه هيست الرادية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 قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وإذا نقر في النار فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين خير يسير صدق الله العظيم تكبير بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لعلى لعلى خلق وإنك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون ما بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وهو أعلم بالمعتدين فلا تطه المكذبين صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدور يتيم ولا يعول على ما شاء الله kon ñu bàyyi ko mu dal tuuti ndax alxuraan daa diis suñu borom daa wax ne yéen def sala sawi inna sanulqi alayka xawlan saxiilan wax alxuraan daa diis jamono mi wàcc yonent bi salaa salaam bu ko masaan fekk ci gileem gileem bi day yësi ndax diisaay alxuraan kon lii di xale yi di tari ñuy tuur ay xéewal daa mënta أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يؤول ولا تامن مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون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 الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يرخفوا بهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم takbir te li koy xaar yaakaar naa bari na lool ak li mu toogool ku war a jàng fulku te fulku léegi mu tàmbali cinq heures boo ko jëlee rek fulku day tàmbali fulk bi nag bu joxee mu taxaw naafila kaamil yooyu yëpp mu koy xaar Cees te fekk Cees nag daa xaw a sori lool te ab dénkaan la ndax ndax ndax moom mii way juróom bu geesoo da ko war a gis billaahi ba bàkki Sëñ Tuubaa way juróom bu geesoo rek da ko war a gis ndax bari na foo xam ne tënji nii bu fekkee mën faa dem moom mii moo fay dem lu ko waral mooy waatoo bu yoo tamit naa bu fépp fu ñu jaar rek am na bunt waaye sa asankat moom ku ne xam na ni am ngay mag waaye bunt bi yow la loolu su borom ko dogal am ngay mag de waaye bunt bi moom yow la kon suñu bàyyi seex sëñ xaadim sab dénkaan la te ab dénkaan nag bu ñëwee dañu xam ab dénkaan nga waaye diñ ko waxee woon rek Cheikh Abdoulaat bis bi da cee jël cër bi nga xam ne cër bu rëy la jox ko ci sëriñ xaadim kan mi macha allah moom tam mu bàyyi yitteem yépp ñëw teew te lool di lu rëy ci moom jëlaat beneen cër yitam jox ko soxna xadi kañ ji macha allah ma nga nele toog ca kanam moom ca ginnaaw te li ñu bëgg mooy mu ñëw toog fii wax dëgg yàlla ndax sëñ Abdoulaat yéene jum am ci moom ak teraanga yoo xam ne bëgg na koo jox te warta mën a sori incha allah ak suñu invité d'honneur muy colonel sëñ Basiiru Njaay ni ma ko waxee woon léegi rek sëriñ Moustapha Lo mii di suñu nijaay teewal ko fi ak sëriñ Seexuna Saaxome ñi leen jox seen wàccuwaay nga xam ne ñoom ñëpp cër biñ ci am fa tabaarakallaahu dinañ leen ko jox bis bi itam dañ ci rendre hommage sëriñ Malick Abdourahim Dem ak soxna Maam Buso Yamasi ak sëriñ Ahmadou Yàlla Ñang ak soxna Maam Maram Si ñoo ñëpp rek ñi leen ci fasaale di leen ci ñaanal comme niñ ko waxee woon waxtu wi dafa xat te bu sëñ xaadim mii noppee rek sëñ Moustapha mais moom tam dañ koy jox ndax mi ngi ci ay yitte te war a dem ba Touba te incha rabbi war dog war ko faa fekk ndax ay yitte yu mu nekk kon bu ko defee dañuy jox suñu baay macha allah moom tam kàddu gi mu doxal incha allah. bis bi warta jaaxal kenn bëccëgub alxuraan ku ko woote Cheikh Abdou Lahad Mbacké ku làmb daj ku xool gis soo taxawaloon leneen lay jaaxal jàmm ni waaye woote alxuraan du jaaxal kenn. ba ca des sa maam am na cër ci alxuraan bari na ay kaang ak i fóore sa daaray maam la ñu jàngee bi ngay ñëw maa ngi ci waxtaan boo gisee nu yàkkamti nit ku ne daa war a fonk nawleem te moom mii toog baayam nawleem la mu xat lool ci bis bii ak weer wi waaye bi mu nekk ko da Sëñ Abdu Lahat daa wóote bis ca Ndakaar da ne àndal ak Baye Cheikh ak Ahmed Diop mii toog Chérif Diop di si doomi sëñ Lamine sëñ Mouhamadou Ndiaye kan di doomu Baye mun Ndiaye kan imaam ak i taalibeem moom ak rakkam sëñ Mouhamed lii ngeen def sëñ xaadim lii képp la bëgg oto bu ñuul bii bii taxaw jële ko Cees indi ko bàyyam ngi ko gërëme ci alxuraan la ko joxe caabi ji alxuraan lay tari ba xolub bàyyam tooy xépp mu jël caabi ja jox ko oto baa ngi nii taxaw bërki dem mu liggéeyloo ko jàkk ca mbaaleen mu def ca jàkk ja 14 millions moom mii toog kitaabu rabbi kaane lii wa kuntu loo wali lay bi sakaltu sëñ xaadim nee na chaise yi ak basan yi ak baax bi lépp moom la waroon moo waroon a ñëw ki taalibeem lal lalli delloo def lu ci waay war a def waaye nee na jamono ak xat-xatam te nu bàyyi koo Cees war a dellu ko Cees mu di la ñaanal lii nga xam ne moom lay teg sa loxo saa bu duggee sa loxo rek nga di yëkkati ko ba faw ak wér ak gudd fan ak xéewal la ma yónni woon ci yow nag di ma jàkkaarloo yow sama xol a tooy ma bëgg la ndax man lu baax laa bëgg dama laa bëgg mënatumaa wax ma ko doon bëgg a jaawale sama poos bàyyi may naa la ko jox nga def ci sa poos wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf maddalana limaana wal islaama wa asanan ixsaani baaxindaama amdun wa sukru lillazi adama ala allazi yabuduhu inama amdun wa sukru lillazi adama قال الذي يعبده إنغاما محمد يهيبنا وخاما بما يزورنا فلن نلاما محمد ينصرنا فلن نلام محمد أنا لنا المرام خدنا له سلام أقلاما من عند الله مباركة طيبة وهي maa ngi nuyu ñépp te di leen siyaare bu baax di jox kenn ku nekk wàccuwaay bi yell ci yow góor ak jigéen mag bàyyiwul kenn di nuyu Sëñ Abdou mi nga xam ni moo tax ñu teew fi di ko siyaare bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom defal ko ak yëkkati ko ba faw ndax moom ak yëkkatikoom yëkkatiko ko lislaam la ndax amul benn cër budul lislaam di jaare ci moom di nuyu kilifa yi fi teew yépp bàyyiwul kenn ñu nangal ni ñuy toog ak seen jëm muy tedd yi ñoo ngi leen di saare bu baax te di leen béggee bu baax di leen jox wàccuwaay bi yenn ci yéen di rafetlu kàddu yi nga xam ne jib na fi yépp te seenu mbaax rekk waral ko di nuyu sëñ xaadim mii di sama waay loolu sax wax dëgg yàlla di nuyu soxna yi ma jàkkaar lool sama yaay toog ci kanam nii mooy borom weer rafet yi ngay gis hmm? <laughs> loolu loolu gars yi naan benn xat benn gone gis gis nga ko nii ak weeram bi <laughs> masha Allah Fall ñu ngi lay siyaare bu baax Fall yaram ak soxna yi nekk ci ginnaaw yépp bokk ci ñi ni cërale jotaay bi soxna Xadi Kànji defe naa ni moo toog nii moom moom daa waroon toog ci kanam nag hmm? daa daa waroon daa waroon toog ci kanam def def musóor musóor gu rëy noonu la waroon def waaye ndeysaan dafa dafa modeste rek wuuteeg man maa ngi siyaar ñi fi teew ñëpp bàyyiwul kenn siñeblaat ma ñëw fi ànd ak ñi ma àndal ngir yàlla ak sa jëmm ak alxuraan ji ñu boole Baye Cheikh wax na ko tant bi ñu toog defe naa ne ko ko ko fi ëppi at nëw fi kon su ma ko jëlee Cees ba fii fonk naa bis bi moom mii Seydina Mohamed mii toog sama wet kilifa la ay responsabilité yu baree bari la bàyyi fii mu toog bari na ñoo xam ne bu ñu ko fekkoon dana ni kii mu toogal mooy kan ndax wàccuwaay bu mu ko jox ay cër yu mu yor moom mii foofa ca Cees am ko it ci réew mi di njabootuk sëriñ bi am taxawaay loolu ca daara ja fi ne fulk bee ñuy taxawu ak naafile ga sonorisation bi moom moo ko yor sunu yoon nekku ci te alal ju bari la ciy def weer wi yëpp ba noppi géral ko boppam fi ne rajo yi bu nu àggee moom moo ko war a taal moom mi te kuréelkat yaa nga fa jàngkat yaa nga fa di ñu xaar looloo tax ñu pressé nii xaw a xat ànd ak sama rak siñ Modou Seydina Mohamed ak Sérif mee toog ak siñ Alsaan ak njaboot ki nga xam ne ànd na ak ñoom ngir yàlla ak bis bi siñ Ablaat amoon yéene nag ñëw fi démb bu ñëwee fanaan xëy takk baas yi lal basang yi arrangé les sièges yi daral gan yi toog fi ba mu jeexit bu jeexee kuy dem ñu yeewi la ngir yàlla ak sa jëm keroog bi ngay ñëw Cees danga ma fekk ma génn xaw a sori Cees lool bi ma ne ko maa ngi bërëb sàng ca mbaalin daa daa jawli fa fekk ma fa ñu bokk lañu bokk fi na moom mën naa ni moom a gën a xam sama yaay ndax li mu nekk ak moom nekk kook man moom sama yaay jiitoog moo ko yar at yi mu nekk ak sama yaay nekk ko ak man dégg nga wax ko bëgg gi ma am sama yaay moom ku xaraw la am ci ay kàddoom ak seereem ak ñaanam ak yéeneem dana gëj a gise lool daanaka bi ñu ngi a gise boobu ñu ngi ci daara ja ma daan ñëw daan ko fekk ci Touba foofu fa mu nekkoon loolu duñ ci fàtte dara waaye boobu ba tey lépp dafa rafet kon yow ñoo bokk bàyyi bokk lépp kon nii rekk la la mën a deme bala nga doon xam bisi fu mu ñu toll ñu yoroon loolu ñuy wax caisse caisse noire <laughs> waaw maanaam maanaam maanaam gaa gaa yi faloon ñu rek xamu foofu caisse noire gi <laughs> waaw moom bu soobee yàlla bu ñu audité daan daan ma jàpp ndax danaa ci sàkk lu bari jox la yàlla xam na ko waaye àddiyee ji ma ci def mu néew ko bari wala yee baarik fii jami'il harakat wa sakanaati wajaalanha barakat na ko suñ borom barkeel muy miftaaxul xayraati wala arzaqi ci yow barki suñ Tuubaa ku baax nga ku am yar ku am yëg ci nit li ma gën a neex ci yow nag ko danga am jom fi ne si ni may gisee nii Baye Cheikh fi ne man du ma xaritoo ko amul jom waaw man koy doon sama xarit mën nañoo ànd nag waaye xarit moom ki ma koy def day am jom day am fit day am ngor ñett yi nga xam ne dangay fekk loo mënul dara nga dugg ca jàmbar waaw man yooyu laa bëgg nit dafay dafay sori ab gis-gis ba noppi ba noppi ay jéegoom rëy bu bëggee àgg fu sori rawatina sa cër danga ko war a téye sa loxo aame te damaa gis ci moom loolu moom fi ne daa mos a daa mos a kokk ni ñuy wax kokk sëñ Abdoulaye waaw waaw ndax daa daa xam boppam nii rekk la mën a deme say maam ñama ma ca xam sëñ Mor Pende si borom barke la woon lool doonoon xaafis doon doonoon aalim min kulli fànnin nag jamonoom kenn yebu ko góor ci alxuraan ak xam-xam jàngal ñu bari moom maamam moo meññ defe naa ne sëñ Malick Bassine si ak Serigne Mor Khady Sy te Baye Cheikh ñaara ngi noonu ñoo xam ni ku ñuy sa maam ku la xamul rekk lay suufeel mbaa muy gam-gam lay sa mbir waaye ci góor yàlla yi lañ bokkoon yoonu murit ci askanu Seen wi mu bokk foofu la jaare ci ñoom lu ko jiitu yeneen wér lañ yoroon waaye doonoon fa ay jàmbar di liggéey lislaam liggéey bu rëy maam yi ñuy wax sëñ Malick Bassine si ak sëñ Mor si nga xam ne ay maarak lañu ñoom ñoo ñëw jébbalu ci sëñ Touba fekk ko gànnaar 1905 kon teel nañoo joxe seen bopp 1905 moom mi la maamam jébbalu ci Sëriñ Tuubaa keroog bi muy dem gànnaar ànd ak Sëriñ Mor yi Si Sëriñ Tuubaa ngi ci biir nekk ca yam ne boobu ki nekk ci bëtub sëñ bi bëkk néeg bi ñu ko doon wax Sëriñ Maxtaar Ñaŋ su ma juumul noonu la tudd Sëriñ Maxtaar Ñaŋ la tudd maamam di fanaan àll di yend àll ngir gis ci Tuubaa te boo fekk na xam-xam ak lépp daje ci moom mu bëgg ci rëbb yàlla waaw ñoom ñaar ñëpp mhm, gane ñu bàyyi leen fa dem ba fa seen wayjur dem te te boobu seen wayjur magal na bis bi ñu waree egsi fukk minutes yu ne Sëñ Tuubaa génn ku tedd ki daal ni Maxtaar Ñang ana ñaari jarbaati Masàmba Caam Mbàkke yi egsee gunu gan gu bàyyi boobu téléphone dara amut waaye sëñ bi moom alamta nil xayba xatta sirtu muntabihan antal alimul lazi alamta yallaahu wa indahu mafatihul bi laa ya'lamuha illa huwa ghaybu yàlla rek ko xam gaa yi bëgg caa sukkandiku ni kon ku dul yàlla xamu waaye ku nekk ci biir yàlla xam li yàlla xam te sëriñ moo ni damma xayaati li xayaatillaahi sëriñ Tuubaa boo koy wër ci lu génn yàlla doo ko gis boo ko mag ma ne ginnaaw yàlla ak yonante bi sëriñ bi dama fekk dama fekk jël ko fekk da ko da ko bëggoon wax ginnaaw yàlla yonent bi sa jëmm ji suñu ci waa bu mu ne ginnaaw yàlla gën suñu ci waa ne ko doo ma fekk doo ma fekk saa bu sëñ bi toogee diir génn ni maxtaar ñaari sëti ma ñaari jarbaati ma sàmba ñaari jarbaati ma sàmba ca mbàkke yi ndax egsee gunu maxtaar ni ko mbàkke egsee gun de waaye comme ku tudd nga ko dana ñëw ndax yow ku sab cër ne fi moom dina ñëw sa maam keroog mi ngi egg Sëriñ Tuubaa bisu bisu bisu tam xarit sëriñ bi wax ko ne ko lu jiitu ñu egg Sëriñ Tuubaa ni ko nag ma waajalal ci ci reeru reeru tam xarit ji cërub ñaari nit maanaam reerub ñaari nit te bu ñëwee nañ ko xéwloo ba noppi nga yëglu ma bi ñoo ñu egsee dañoo egsi rek ba toog. fekk nañ fa mbooloo ak ay kilifa yu naar yi gànnaar yu bari sirif yi sëñ Tuubaa yónnee ndaw ni nañ ma wool sëñ Malick Bassine si ak sëñ Mor Xadi si moom bëkk néegi génn ana ana sëñ Malick Bassine si ana sëñ Mor Xadi si comme que ñoom ñu ngi fi ñëw ñu gan nañ fi kenn xamu leen fi ñu tan xam lu ndax jàpp na ni kenn war leen fi mën a xam ba di leen woo ba mu yàgg sëñ Mor Xadi si ni ko daa mel ne ñun lay waxal te ñu wuyu ba xam ci lañ daal di yëglu ñoom ñaar am lu ñu waxante lu bari dafa gàtt dafa dafa dafa dafa dafa xat bi ñëwee sëriñ bi teral leen ñu jaayanteeg Sëriñ Tuubaa waaye li fi daje nii di alxuraan noonu rek la mën a demee keroog bi ñu jëbaloo ci Sëriñ ñoom seenu tarbiyee mooy sëriñ bi da leen jox daaray kaamil ja ca ja ca gànnaar daaree kaamil nga xam ne Sëñ Tuubaa da leen féetale ci alxuraan ñu di ko ñu di ko wattu Sëñ Tuubaa day li mbooloo meeg njëbbal yi doon bari bari kanzul kitaabu la wax sama trésor mooy alxuraan wal xadiis wal adab laa jamoo fiddatan wala jamoo saab bil ko naan alxuraan ji mu doyloo tax demul fa xultu xasbiya bii la wax saa borom doy na ma waktafaytu bihi te doy la naa ko wa rastu raadiya xayral anami wa diini lu dul xam-xamal ma ci dégg du ma signé ak kenn lu dul xam-xam ak diine ba lii xew-xew ci moom kon ku muy sa foofu rek nga war a jàpp kon ñu ngi sant ñépp te di leen gërëm di leen ñaanal yàlla xam na ne bu woon ak weeru koor wi ak jotaay yi ñu war a def kon fi lañuy toog ba jant so ba mbooloo mépp dem ñooy mujjee yebbi ba doon sama yëfi bopp it dama koy baax waaye ab dénkaane la Baye Cheikh wax na ko léegi tee ñu war a jàng fulk bi te ñoo koy taxawe naafale yi kasaalik si laat moo tax ñu ñu pare sëriñ ñoo ngi koy jéggalu bu baax di ñaan nga taxawe koy ati at te at mu ñëw gën a mag gën a yaatu xéewal yi gën a bari nee na mu ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yépp nee di nuyu bokki taalibe yi yépp nee ma ngi nuyu siyaare nee ma ngi balu àq ci jataay yi nee li jataay bii di gàtt-gàtt nee kenn ku nekk ci ñun ne am na lu la yëkkati loo xam ne la la yëkkati yàlla képp a tax ne kon sëriñ bi sëñ xaadim ne noo ngi nuyu Seex Abdu mi nga xam ne yàlla def na tey jataay bii ñu teewe ci moom la jaare ne nuyoo bi nag ne ak cant gi ne ma ngi bàyyi ko ci ku tedd ka Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér lool jaare ca jëwrinam dañuy wax sëriñ Moussa Nawel yàlla na fi gën a yàgg ne biig ba nu jógee ca njàng ma kër sëñ Tuubaa ne ba nu ñëwee laa ko fàttali bisub Cheikh Abdou Lahad bii ne wax ko li ci xew lépp ne wax ko fu bis bi tàmbalee wax ko kan mooy Cheikh Abdou Lahad doonte Cheikh Abdou Lahad ne xame bi àggagul fan ko bëggee dëgg waaye xam ko ñee jiitu na ma gis ko sëñ Aliou Ndiaye jànge naa ci moom alxuraan sëñ Aliou Ndiaye Gédé ne xëy ba jant soo ne sëñ Mor Bassine sëñ Malick Bassine ne loolu képp mooy waxtaanam ci ne xam naa ci moom lu baree baree baree ne boo gisee li ma la doon junj léegi chablat ne xam naa la lu jiitu ma lay gis ne fa mu tàmbalee ci nii ko sëñ xaadim kan doon waxe ne mook sunu maam ñoo fa bokkoon nekk ne ñoom day xame nanu ne kon bi nga xamee ne xam nan bis bii li ci nekk ak fa mu jëm ne ban ko ko leeralee lanu ñu nanu ñëw ñun ànd ak sëriñ Basiiru Faal mi ko nekkal ci géejawaay sëñ Modou Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Bachir sëñ Cheikhouna Jaxate mu baax mi toog sans nga xam ne mooy mbokkum boppam mooy ki nga xam ni moo gën a jege sëñ Muntaxa ci mbokk ne loolu li muy firi mooy bis bi yitteel na sëñ Muntaxa lool ne loolu moo waral sunub teewaay ne am na fu mu tàmbalee nag muy wëllëreem nga xam ni colonel Bassirou Ndiaye ca moom la yëf yi tàmbalee ndax mooy wëllërew Cheikh Abdou Lahad toog joo xam ni seen diggante ñoom ñaar ne lu bare bare bari wax na ma ko ci ne ba fii ñu toog di wax li nu fi wax lu bare bari dégg na ko noo ngi déggante ci téléphone nu ngi koy leeral li fi ne moom moomee nga xam ne mooy colonel la Cheikh Abdou Lahad mii jël ab cër ci bis bi tudde ko ko ne te sëñ Moussa Nawel di sëriñam di wóllareem ne di wóllare la tàmbalee ca buur Sine Kumba Ndofeen Diouf may maamam ndax na mu deme woon sëñ Tuba ak ay boroom cër ne loolee la sëñ Moussa Nawel jël ba tax cër bi mu ko joxoon ci colonel Bassirou Ndiaye ne mu farfeete woo lépp nag ne boo gisee tàmbalewu ma ci colonel Bassirou Ndiaye ak sëñ moom bu taxawee lépp jeex na ne loolu daal moo waral nga xam ni waxtu wi moo xat am na lu mën a wax lu bare bare bari waaye li ci ëpp solo mooy li nga xam ne daal mooy lay jataay bi ne bu dee ci wax ji liñ fi war a déggee ci lu ñu war a yóbbuloo sëriñ xaadim wax na ci lu bare bari ne fas na nu yéene nag ñun ànd koog yow rek bu nu yàlla dimbalee nu fekkeeti ko na nga ñaanal sëñ Muntaxa ñu ñaanal ko ñun ñëpp ñun ñëpp noo ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal sëñ Muntaxa yàlla gën ko fee bàyyi ba nu fekkewaat ko waaye buñ ko fekkewaatee dana ànd ba ca moom nu yëgal ko bis bi liñ ci war a taxaw ñu taxaw ko jël leen